production présente. violence moom foog ñu wàññi ko foog ñu bàyyi ko sa laay wax amul wàññi. Mhm. dañ ko war a bàyyi parce que du dëkk dëkkul Sénégal moomul loolu xamu ko. Mhm. Sénégal bëggul ko toroxal nit. Mhm. soo ko dee rek jéem a toroxal kenn ko xool ñëppay dal sa kaw. même fekkee dala tooñ sax boo ko toroxalee gars yi dal sa kaw. Sénégal xamuñu loolu ñu daa am nu ñuy yaree. mag ñi baax yi yàlla suñu borom xéwali ko. te yenn dëkk Afrique yëpp tey koo ci lim ci kilifa diine foofu da ngay a benn doon ñaar mais xoolal fii soo xoolee maam Ahmadou Bamba. nga mhm. xool maam Baye mhm. xool euh, waa kër El Hadj mhm. kër Buntaga. boo limee xool waa kër maam Limaamu. soo limee rek da juum. ñu dañu am sens ay magu diine ay kilifa. Mhm. dafa am Sénégal lu riis lu ñu am yeneen dëkk yi amul. Mhm. du dëgg. Mhm. kon koo fi gaañ rek jàppal nii sa sa bopp nga ko def. parce que boo xoolee xew saa yi xew amee rek boo demee bokk ak nit di nga ànd ak nit. ay at yu bëri un jour maam yi daje rek wax la li nga bokkam da nga naan xam naa lii lañ yëgoon. ñun ñëpp benn lañ. te loo bëgg ñu def ko sa rak wala ñu def ko sa mag. bu ko def magu jàmbur ko def rek ko jàmm maa ngi koy wax. nit liggéey ba sonn yor alalam. Mhm. di dox nga xool ko nga bëgg lu yomb. Mhm. damoo liggéey parce que wala affaire violence ni yomb la. Mhm. xool nit muy liggéey ba sonn yor alalam xam lan la ci def ba am ko. nga kar ko waxuma la nangu sax mais nam sax mu ngi ko cee jël. ci lan ci benn objet. la mooy objet portable. loo ci am benn cent mille wala benn deux cent mille bu fekkoon sax portable un million la boo ko raw nee alalu ndañ la boo demee benn cent mi nga ci am wala benn cent cinquante nga ci am. Mhm. xaalis boobu est-ce que ñeme nga ko jox sa papa wala sa yaay wala sa doom mu koy lekk. Mhm. soo demee ba ñibbi sa kër toog xool direct nit ki nga tuur. Mhm. xamoo na mi ngi dund fu mu tëdd wala dee na. loolu boo ko téye war ngaa tiit. te xam ne même bu la kenn gisul borom bët bu dee baa ngi lay gis mu yàlla suñu borom mu ngi lay gis li nga def yëpp mu ngi koy xool. te ku ko defoon sa rakk war mu def ko sa yaay nga bëgg a rey sa bopp. te waxuma la dara sax ni nga koy sax jigéen ñi. jàmbaar nit lépp lu mu bëgg ci àdduna bu ko liggéeyul mënu ko am. mënoo mhm. ma may yow. Mhm. lu ma bëgg a dëgg mënoo ma ko may. Mhm. man maa ko muy ñafe sama bopp. yow tamit aussi même chose. sànq maa ngi koy wax dóorante ñuy dóor ci làmb dafa métti. dañuy dóor ñuy nàcc. ñuy dóor ñuy daanu. di jël ay coup di entraîné di yow cinq heures du matin daw ay huit kilomètres di daj ngir lan. ngir bañ a jël alalu jàmbur yaa <laughs> ngir bañ a jël alalu jàmbur xam nga ngir bañ a sàcc alalu jàmbur. te suñu yaay yi sànq maa ngi liggéey nañ liggéey yoo xam ne fii yaay yëpp a sonn mm-hmm. nga am sa doom ñu doomu diw sàccal wala agresseur yaa ngi toroxal sa yaay lu tax ñu koy wax loolu. Mm-hmm. jàmbaar góor yàlla dëgg un vrai gentleman. Mm-hmm. day suturaal yaayam. day suturaal yaayam. war nga bañ ñu ne doomu diw ngi fële wala doomu diw mooy def lële. parce que sa yaay dafa sonn. ay bool di la wëri di la fekk tout le temps ci ay affaire yoo xam waruñu la fekk. te jur doom yëpp te bu sañoon tamit nga nekk kon yeneen doom yi. Mm-hmm. mais ñu waxante dëgg am na loo xam ne ku ko nekk yaa njëkk xasul sa yaay. Mm-hmm. yaa njëkk xasul sa papa. Mm-hmm. parce jur nañ la fu la war a juree. yaa màgg na bëgg lu yomb. bëgg lu oyof torop nangoo liggéey. nga fekk nit ku liggéey kook nga dal ci kaw mun a nekk père de famille. mun a yaay mun a nekk gumba. papaam nekk gumba moom mu nekk benn seul nit bi dem. di liggéey ñu di koy jox. jàmbaar li may wax dimension la. Mhm. yàlla bu ñu sàkkee sax na borom xel yi laay waxal. la na gaa yi indiwaat seen xel ñu duñ ay mala. Mhm. ki ngay def loolu est-ce que yaayam tëddul feebar. Mhm. mu dem dàng dàng ba yor benn weccit boobu. ñëw nga kar ko dóor ko ndar jël bakkanam est-ce que nekkul dafa yor ay tut tànk këram. doomam feebar muy wër. ba am astuur nga dajeeg moom xamoo jëmoo di jënti loolu lépp tax moom mu def defee ñafe ba am boo ko ñafee am nañ bàyyi agression bi nañ bàyyi jël alul jàmbur yi nañ bàyyi violence bi estaat yi ñu jël di toj siège yi wala ngay yàq yàqoo alul kenn sa alal ngay yàq mere nit bu la taxee nga ñëw di yàq estaat ngay toj oto jàmbur yi xamoo nañ dafa am seen oto xamoo ñu def tey aussi ba tabax estaat bi et tout nañ indiwaat xel yi bu baax mooy li ma wax defaraat tamit aussi jikko yi rafetal kàddu yi si site internet da ngay gis les gars yi dañuy xeex guerre guerre média mhm. nit koo gis mere ko da ngay dem ci internet bi wala dara pour yàq deram mhm. yàq der nit dafa garaaw mhm. bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy te képp ko gis mu koy def balaa nga dee yàlla dina la yàlla mi sàkk doomu aadama da ko sàkk suturaal ko te nit kooku yàgg na def lu baax pour ko anam duñ ko wax te roy ci lu baax moo gën roy ci lu bon. Mhm. ni ñuy def yu baax yi nañ leen di wane ñu leen di roy ci lu baax. Mhm. na xale yi di ñëw ñun rëcc nañ kon mu koy sànq échappé nañ parce que magum jëm lañ kenn def la ñu war def mhm. mais suñu doom yi ñu ngi ñëw dañuy yor ay téléphone dañuy suivre actualité bi dañuy xam ni xew ñoom bu ñu ci màggee kan moo di mën a tourner après ban Sénégal la ñuy créer parce que mag ñi ñooy xale yi ñooy doon mag yi ëllëg foo ñu def si ñoom yar te xale yi seen mag yi rek lañ mën a xool seen papa lañ mën a xool ba ci bii kër gi dañ ci war a yar xale yi bu baax école yi tamit surtout parce que bu ñu ko defee mooy nekk suñu ñun suñu bopp lañ koy defal parce que dañ fiy jógee ñoom nañu fi nekk te ëllëg dëkk bi day gën a doy waar. du dëgg kon nañu xoolaat bu baax sénégalais moomul lii xamuñu ko dëkku fi. bu ñu ko fi amu fi place nañ ko fi jëlee. maa ngi ñaan nag jàmm yegg Sénégal. Euh, amiin euh, yaa rabbi donc mm-hmm. euh, nga lancé benn message bu am solo. Mm-hmm. et puis euh, dama bëgg a dem ak yow rek euh, ba tey ci wàllum euh, supporters yi ndax gis nañ fi keroog rek Liss Ndiago ci combat am bi ñu ne ay supporters am moo ko def ba daan nañ ko sax daan bu metti xam naa sax suivre nga ko. Mhm. ñu ne dañ ko condamné trois ans. donc deux ans yëpp sursis lay nekk. Mhm. alors man lu ma bëggoon xam rek mooy tey jii nii ndax daan boobu noonu. nekkul euh, lu diis euh, parce que tamit euh, am na yenn mbër comme bu ñu demee woon interviewé Forza moom nee na ñu tojoon chaise yi nekkul woon ay supporters dañ ko infiltrer na xalaatoon ni que des fois tamit scénario boobu noonu am ñu infiltrer say supporters te nekkul ñoom ñoo ko def. waaw loolu lépp loolu lépp mën a nekk parce que tam aussi nit moom bu waxee doo ko doo ko doo ko weddi lu mu wax tant que tegu suba du dëgg mais supporter la ñuy wax defaral sa mbër moo gën ko koy yàqal bon moom champion la dafa yaakaar ci làbb premier combat am la daan wala deuxième combat am Liss bi muy premier combat wala deuxième combat bi je pense mooy deuxième combat am. xale la. amagul fu muy fu muy ñàkkee ñu perte roi des arènes nag est-ce que gaa yàq bi est-ce que keroog samay supporter lu lu gën a métti que pire que ñoom seen supporter li ñu war a def mooy bu ñu jugee loolu bu amatee nañu woo seen mbër taaj ko wax ko seen fukki dëkk xamal ko ni yéene bi lañ am ci yow xool ay faayam. rectifier ko critiquer ko moom tam mu nangu ko. Mhm. ñu wax ak moom na ko làmb lii ak lii la noonu boo bëggee jàppale sa mbër noonu koy def mais nga daanu nga yàq stade bu ñu def noonu taxul nekkul luy defar mbër te loolu gars yi ko commencé xewal te bu ko benn supporter defee ñaar ñett rek bu ko defee ñëpp dañu yaakaar loolu jaadu la mhm. te jaaduwul làmb foofu noobul la làmb foofu jàmbaar la mhm. képp kuy jàmbaar da nga koy bëgg a suivre da nga xool parce que ci sa bopp du dëgg kon nañ ko rafetal image bi nañ ko rafetal mais vraiment loolu ñaawlu naa ko trop que ni stade bi suñu stade la du dëgg ci li ñuy daan suñu doolee te nekkul mbër mu kese moo ci dund. du dëgg am nay jaaykat yi fa nekk am na boo koy lim du jeex kon nañ xam ne lii suñu yëf la quoi ñu defaraat xel yi bañ fa gaañ kenn koo fa toj boppam doo ci gañe ba ndam nga ci am amul dara te ñëpp mu nga gaañ sax koo àndal. sport la xam nga bu ñu demee foofu pourquoi mu ñu def ko joueur yi bu làmb amee ñu daan bëri ñu changé ay tiset supporters yi ci kaw sa joxante ay tiset mhm. lan la kottante mhm. dem ba di payante si biir. Mhm. day dem ay xarit am si sax bu duggee la am di wër sa morom boo koy woo téléphone. sport bu boolewul rek warut a tàkkale. xam nga gars yi de xoolaat bu baax quoi. waaw loolu laa message mooy sànni que ni booy champion la yeneen mbëri ndaw yëpp maa ngi leen di ñaan ñu nekk ay champion du dëgg nañ jàpp ne sport bi foo ak ree rek la mm-hmm. sport moom foo ak ree mm-hmm. bu problème amee sax gars yi ñu ne sportivement xanaa du ngeen ay sportif mm-hmm. bàyyi la mu sedd gars yi bàyyi mu sedd kon loolu dañ ko war a dëgg la ah. ok Mm. Euh, alors euh, vraiment waxtaan bi euh, amoon na solo loolu ëmma ah, ñu ngi lay jox rek rendez-vous kon ci prochain face à face bi am donc mën na am sax ñu def ko ñu def ko mbuur comme ni ko Pape ba waxee sànq ñu ngi lay remercier waat bu baax a baax ci sa amabilité ah say say yaatu ah, ak ah, aussi euh, plaisir bi nga am ah, ngir euh, tontu ci suñuy laaj alors euh, mbokki internet Gaston Production ak Post Afrique ñu leen di bàyyi rek aussi Pape ba tàggatoo ak yéen. waaw bala ma tàggatoo peut-être dañuy bàyyi mbër mi mu tàggatoo comme waxtaan nañ waxtaan fii dañ koy yabale ba beneen yoon xëy na fan nañ tey si mu tàggoo. waaw waaw di nuyu di nuyu di nuyu xam nga suma staff yëpp ah. waaw commencé ko ci euh, président bi Barkala xam nga ñëw ci Cissé Lanjang xam nga ñëw ci Pape gay xam nga ñëw ci Mamadou Lamine joom Latif xam nga staff bi yëpp ku lim da ngay jum Cheikh Ndoye xam nga ñu ngi koy ju nuyu ju nuyu tamit aussi Saw xam nga di nuyu suma gaañam saa bogal xam nga Ibou Sy et aussi tam vraiment ñu ngi ko nuyu moom tam dafay sonn ci combat bu baax a baax xam nga di nuyu maam góor xam nga suma spar di nuyu Tyson 2 xam nga suma gars yëpp maa ngi nuyu bu baax parce que combat bi vraiment ñi si ñu si daj lu nekk li ñaanal Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg coupe du monde yàlla na fi ñëw yàlla nañu yàlla musal ci lépp luy lore yàlla nañu yàlla musal ci bépp tolof tolof gars yi liggéey di am xaalis yàlla na Sénégal naat ba adduna bi xam ne naat na waaw man nag xam nga wax mu néew ma noonu <laughs> ok merci. mais aw ak ñaareel. waaw waaw exactly xam nga maa ngi nuyu xam nga suma jabar xam nga maram Ngom di nuyu tamit aussi xam nga xarit Traza bu baax a baax maa ngi koy woo ci làmb mu ñëw Traza TV. <laughs> Traza hôtel Traza maa ngi ñëw ci làmb ñi nag wala na ci sponsor yi may woo ci ngay bokk waaw suma ñaareel bu xaritu jëgëram xarit Traza hôtel Traza foog mu ñëw ci làmb ji ñu ngi la ci woo bu baax nga ñëw sponsorisé. Mhm. ok kon gars yi nañ séntu Traza ci biir. mais Traza bu ñu day jaar service commercial fa am déggante Makan yooyu yëpp. amul problème Makan non dèjà may Traza. anyway xam nga. waaw hôtel Traza mu may Traza te damay ñëw def suma participation naa ci waxtaan ak Makan xam nga gars yi gis Traza hôtel Traza lagros Rose. gars yi gis ko ci biir lamb ji. te incha nañ ci waxtaan ak Makan Makan. Traza hôtel Traza dina ñëw <laughs> jaayëf aja remercier yëpp si Gaston amuñu seen fay parce que dañu perdre seen temps toog di ñu déglu. Mm. di waxtaanee làmb bëgg-bëgg làmb. Lamb Diaspora njël nuyoo bi teg ko si loxo mu jaarale ko gars yëpp. Mm. di remercier tamit di remercier bu baax aussi di ñaan yàlla jàmm xaj Sénégal yàgg Sénégal te xaj fi aussi le 27 mars que le meilleur gagne ñu dem si journée bu neex incha allah. incha allah noo lay demee def journée boo xam ne journée bu mucc ayib lay doon. kooku moom na ko gars yi xaar lamb ji moom dina ne incha allah. production présente.